weeru koor bi agsi na jigéen ñi soppi li nga xam ne tamit moo di seen doxalin ak seeni colin ñoom nag bu weeru koor bi agsee tàmmuñu lenn du sol li nga xam ne ni moo di yëre olof modd ak tendance jamono jii nii ci weeru koor bi jigéen boo gis mu ngi muuru mbaa mu ngi sol li nga xam ni li moo di weeru koor gi ñenn ci ñoom ci ñi nga xam ne ñoom la ñoo tiim jox leen suñu micro lii lañ ci àddu waaw ku mel ni man moom yëre olof yi man damay sonn mënumaa dëkk sol chaque tey tubaab bi daa gën a noppale moo tax rek weeru koor gi moom daf mënul ñàkk mënuñ ñoo ñàkk bañ a sol yëre olof. ah man de moom wax dëgg yàlla man bokkuma ci nda yëre olof moom moom lay xëye moom laay gontoo ñooy nag moom xëy na ku ci nekk at la la neex waaye weeru koor moom dafa màgg xëy na ne ñoom ñoo ñoom daal loolu ñu tàmm ñoom ñoo ko tàmm waaye weeru koor daal maanaam benn weer la. dëgg yàlla ku ci nekk war nga see mën a jaamu yàlla yàlla nangul la sa jaamu yàlla yàlla ndax loo xam ne at ba at la moom dëgg yàlla ku ci nekk bu fekkee ne na sax da ngay sol yëre yëre tubaab sax bu weeru koor bi ñëwee war ngaa mën a sol ay yër olof weer koor bi jàll nga delluwaat na nga bëgg. waaw ah, koor jotee am na xale jigéen yoo xam ne dañuy sol ay yëre olof. tey koor gu passé duñ sol sol ay ba genre yooyu noonu koor gu jotee moom loolu daka laaj weeru koor moom sellal dakaa laaj parce que faaw ngay sol sell sol lu yiw di muuru di jàpp di julli euh, am na ñoo xam ne nag moom duñ ko def genre say jóg bi waaw li mu ko gisee mooy jigéen ñi dañoo bëgg di sellal ci koor gi ginnaaw bi nga xam ne tamit àddu nañ ci seeni kàddu ñenn ñi di wax li nga xam ne moo di weeru koor bu ñëwee moo di sol yëre tax na jigéen ñi ci bëri yokk li nga xam ne tamit moo di seen ba tax na duñ mën a yàq benn koor li nga xam ne tamit moo di góor na bu ñu solee li nga xam ne moo di yëre tubaab góor ñi mën nañ leen xool te loolu day yàq seeni koor anu lan moo waral li nga xam ne tamit moo di melokaan boobu dara taxu ko lu dul li nga xam ne tamit moo di weeru koor biñ dugg mën cee am li nga xam ne tamit moo di tiyaaba ak ngëneel lu bëree bëree bëri bëri noonu ci ñi nga xam ne ni ñenn ci ñi mënoon nañ taataan seen micro ñoom it àddu nañ ci lii. ah ñooñ si leen li ci seen i parents la rek ndaxte yëre olof boo ko dee sol yëre tubaab boo ko dee sol ba weeru koor jot nga wàcc say waajur mu nga wàcc fa say waajur ñu lay xool ngay génn di sol ay yëre tubaab di yàqal ni ñi seen koor. ci bàkkaar goo xam ne nii yow leer na la yow bàkkaar googu yàlla mën na la ko baal mën na la ko ñàkk bañ a baal. waaw ndax jigéen ñi fu ñu yiw ndax weeru koor bi weeru jaamu yàlla la ah dañoo war di sol yére yiw bañ a sol yére yi yoo xam ne dañuy romb nit ñi ñi lay xool wala seen xel di nekk ci yow loolu yëpp ay bàkkaar la te comme que benn weer boo xam ne moom loo ci def ñi defal la ci tey jii boo julli woon ñu defal la doublé la ko ñaar ba cinq ngay def lu yiw moo gën. di sol yére yiw. loolu moom dëgg la parce que yére tubaab moo gën a noppale yére olof da des fois da yooyu. déedéet du ci côté parents yi sax ndax kenn ku nekk. man dama yaakaar na ne man sama jëm bopp hmm, weeru koor gi dagan na ma nekk di sol yére olof di eh, sellal ndax kenn ku nekk xam na di nekk ci weeru koor boo solee tubéy bis boo rombee da nga yàq kooram ndax xale bu jigéen bu sol jiin lañuy la ñuy bañ a gis moo tax loolu jigéen nañ ci bàyyi xel nañ bàyyi tamit kóor góor ñi yàq ci weeru koor koor dafa metti wax dëgg sa yàlla woor ba ngoon jot amoo noo def dem ba dog di waajat romb xale bu jigéen bu sol tubéy boo xat ku ci ne woor ku ci nekk nag jaamu yàlla ji moom ku nekk xam na ko moom boo wooree war na la soo wóoru war na la ndaxte jaamu yàlla teeta teeta làmmañ la teeta teeta làmmañ la maandu ndax nit ki bu fekkee ne loo ko bëgg a wax tamit nga jàkkaarloo moom wax ko ko waaye am na ñoo xam ne dañuy woor ba pare te amuñu benn koor dañu toog ci der jaamay di wax ka tooñ ak façon bu nekk dugg te kalaatu Modou Mbengue yaa ma gën xam. maa ngi leen di digal daal bu yee koor jotee ñu sol yére ma leen digal ma soñoon ñoom ñi sol yére olof ndax moo gën ndax mën ngaa romb nit xelam nekk ci yow korom bis bu ko yàqee yow bàkkaar ba yow yaa koy yenu bu boobaa. noonu mbokk yi li leen leen indiloon ci li nga xam ne moo di information di leen dox dig daje ki leen doon ko defal di Mamadou Mbengue Bawal Times TV Diourbel.